ñi fi toog ñépp dama wax ni ñi fi toog ñépp ku ci nekk lenn nga soxla mooy ku la jokkale ci yàlla ma ni ñi fi toog ñépp ku ci nekk li nga soxla mooy ku la branché leer yu jóge ci yàlla waaye ñi fi toog ñépp li leen fi indi mooy ku leen orienté ci ay jikko ak ragal yàlla ba ñu mën a dellu ci seen boroom intahu ila nihayatikum wa inna ila rabbikal muntaha waaye sëñ Abbas Sall nee na nee na yoon yi jëm ci yàlla bëri na waaye sëñ Abbas nee na yoon bi ci gën a gaaw gën ci efficace mooy sëñ Babacar si sëñ baab sëñ abbas ñu ni ko bindal mu ne xayrul wasilati lil maahi ay ilal maahi wa xaaliq ñu ni ko sëriñ abbas kuy sëñ babacar mu ni badru duja te li ci gën a neex mooy wa uqudul ahdi waa fiha sëñ Abbas nee na xayrul masilati nee na yoon yi jëm ci yàlla bi ci gën a efficace mooy sëñ Babacar si moo tax sëñ kër daan na wax ne defar nit ba mu yegg ci yàlla ak ci suuf si laa yemale ndax tijj bi ci suuf si di nga sëgg-sëggi waaye sëñ baaba kër bu lay defar du sëgg dalay xool nazratul moo tax maam Habib ni ko man comprendre naa unzur ilayya bi ayni rahmatin sayyidi wal baabu fikum yaa imaama zamani mu ne ko neexul ba neexul yow sëñ baaba Babacar si yaay ki nga xamante ni yaay jiite jamono moo tax sëñ Babacar si amul luy jóge ci yàlla di jëm bu jóge ci jaam yi jëm ci kaw lu dul ba ci loxoom lay jaar ndax alxutbu fa maa wasala ila alxalqi min alxaqi sheyun kaainun maa kaana illa bi xukmi alxutbi wa tawliyatihi wa niyabati alxaqi fii zalika sëñ Babacar si ne allahuma bu jóge ci suuf jëm ci kaw dinaa ko vérifier man Babacar si bu dee njariñ ci jaam yi ma bàyyi mu dem bu dul njariñ ma téye ko te yàlla du ma wax pourquoi moo tax dem na ba mujj dundam du ñaan ñu ni ko Babacar Sy ñaanatoo mu ni koo xam ne lu mu xalaat yàlla def ko di ko ñaan bokk na ci gàtt xel moo tax po bone carême ba pointure bi 55 la 55 mooy mujjib mujjib mooy yàlla miy wuy ñaan yi moo tax sëñ Babacar Sy lu mu ñaan rek yàlla nangu ko moom sëñ Babacar lu la gis am na taala mbay sol dul bone carême fonk wëlëre ci mbay laayam ndax kat fal ahdu mas'uuloo ko fàtte di ñaanal xalifa mbay fi nekkoon moo yoroon xilaafa ji bootaan